Amis auditeurs, merci, bienvenue. Djili Manglenuyu. Cette semaine, nous avons le plaisir de recevoir depuis chez lui X-Men. Il est rappeur, artiste rappeur donc. tey moom chanteur. <laughs> X defal ndànk. <laughs> donc ji maa ngi lay béggee bu baax di béggee ñëpp ñi nga xamante ni ñoo ñuy teewlu sur la radio du bonheur comme je l'ai dit Rewmi People tàmbaleeti na. acca ñu dem X maa ngi lay nuyu. yes maa lay fay. lu bees a bees a bees ni may nuyoo Juli. fan yëpp ma lay woo ngay fay sa téléphone naan ma yaa ngi studio jamono yi ngeen génnul ñëpp ñu ngi ci sami confinement bi. ak ñun dañuy studio studio la ñuy confiné wu. instant yi lan ngay préparé xanaa à part euh, mise à part euh, son bi nga teg ci marché bi euh, concernant la sensibilisation xanaa dafa am. ci yeneen projet yoo nekk dafa am looy préparé. waaw dama nekk si un grand projet un projet album. Mm-hmm. voilà donc euh, quelque soit confinement bi dañuy essayer di ko door ndànk-ndànk. dès à présent je te présente X-Mana ah, noonu la. voilà c'est ça. waaw mais avant tout dama lay bàyyi nga nuyoog ñi nga xamante ni ñoo lay teelu ci la rajo Rewmi FM. d'accord donc euh, salaamaaleykum chers auditeurs ñuy déglu Rewmi FM 97.5. voilà di bëggee samay fans de bëggee tout le monde ñëpp ñuy déglu. Mhm. di bëggee sama famille di côté de Ndimak Tokomak Fisal Mbadam man séeréer laa nag dëgg yàlla. Mbadam. Fisal Mbadam. yow ëppagum yow ëppagum sama sama famille d'origine foofu la. mbaa dégg nga séeréer. bu baax. ban ban ban genre séeréer la saafeen wala. <laughs> si sin la loolu séeréer si séeréer okina pogum okina pogum jaaratak voilà donc on di bëggee en tout cas gars yi may déglu côté de Diourbel aussi fi may servir fi may jobee tout voilà en tout cas di bëggee tout le monde voilà ñu lay bëggee tam X-Men artistiquement est que mën nga ñu wax X-Men bi fan la jógee Voilà, artistiquement, X-Men, c'est un peu une inspiration, inspiration d'enfance. Hein. En fait, euh, j'aimais regarder des films, les X-Men. Mm-hmm. Voilà, vu seen accoutrement, vu ni ñu gravé et tout, xam voilà foofu foofu laa ko inspiré mais en fait euh, euh, ngay évoluer di dem en fait mu am benn concept am philosophie. Mm-hmm. donc X-Men c'est un peu la recherche de la valeur de soi. Mm-hmm. voilà parce que dañu ne X inconnu la inconnu cest dire la nga xam ne xamuñu ko. Euh, la nga xam ne xamuñu lan lay peser te foo ñu rechercher ko foo ñu rechercher ko à travers les œuvres foo ñu teg ay actions teg ay pas donc euh, je me dis que se mesure face à l'obstacle si lay xam valeur am si lay xam léppam donc euh, mënuloo xam sa bopp mënuloo xam li la wër mënuloo xam sa entourage sa environnement mm-hmm. tant que yi jëmale si xam ko si def ay recherche et tout quoi mm-hmm. voilà donc expliquer concept bi la quoi D'accord. Xam sa bopp Voilà. Est-ce que ceux qui t'entourent euh, cela original? Qu'est-ce qu'ils en pensent? Qu'est-ce qu'ils te disent souvent? ils me disent que X-Men, bon, parfois euh, comme quelque chose ba nga xam c'est un peu ouais. Parfois. <laughs> ça sonne X. <laughs> mais voilà. Si, en tout cas, si, si tu coupes ça, ça c'est ça. Uh -huh. Mais bon, toi, voulant pas être vulgaire, en fait, bon, en fait, je me dis que, euh, nous, nous, nous, X, X l'inconnu, X, Y. Ouais, parfaitement. N'est-ce pas? <laughs> Et que connect. Uh -huh, voilà. Allez-y, allez-y. Voilà, voilà. Donc, euh, bon, en fait, mm -hmm. la recherche de la valeur de soi, c'est-à-dire, moi, gomme ce En fait, on a le concept de beaucoup élargir, du coup, il y a des hommes, des hommes. day am mooy voilà ambition bi nga xam ne moom ngay doxee. Mm-hmm. d'accord voilà à la recherche de soi quoi. à l'état civil tu t'appelles comment. je m'appelle Jimit Galas Dione. Jimit. ah Jimit c'est séeréer ça. typiquement séeréer voilà loolu sama maam moo gis raax quoi moo gis raax uh-huh. <laughs> man Fallou lañ ma tuddee maam Fallou. Fallou lañ ma tuddee mais en fait bon bi ma demee bay dugg école. Mm-hmm. voilà fallait l'état civil comme ni nga ko waxee. d'accord donc sama maam xam nga séeréer rek ñoom foo ñu raaf ndaw ak. ok. ñu fi jimit baal fi galas bi après voilà. simple ça quoi jimit galas jonn. mais yow fexe nga fexe nga ba ma joxe sama tur bi si rajo bi comme ça. pourquoi tu as opté à faire du rap. <laughs> en tout cas j'ai débuté avec le rap. Mm-hmm. Euh, rap laa débuté. Euh, voilà mais en même temps aussi di woyantu quoi. Mm-hmm. je mets su ma bindee texte rap. def si refrain ba nga xam ne ne chanson lay doon. Mm-hmm. tu vois donc mélanger R&B ak ak ak ak hip hop bi ko ak rap bi c'est la même famille tu vois. mais aujourd'hui après dama dama évoluer tuuti jëm si instrument yi. Mm-hmm. bon dem jàngi guitare et tout. donc tout ça fait que aujourd'hui chanson bi laa gën a opté même nekk nekk rap bi en fait. d'accord pur rap pur bi quoi. Euh, parce que voilà boo déglu samay chant tu vas comprendre un peu. D'accord. Euh, quel est un tout petit peu la différence entre la chanson et le rap c'est la même famille en fait parce que bu ñu waxee chanson bu waxee chanson en tout cas bu ñu waxee hip hop mm-hmm. moom moo moom moo englobe yooyu noonu yëpp moo englobe rap englobe R&B tu vois am na chanson yi nga xam ne beneen yeneen genre musical jëm si reggae ak yeneen mm-hmm. tu vois mais différence bi un peu mooy rap c'est c'est un peu paroles yi am da nga koy wax d'une manière sec Mm-hmm. voilà alors que la chanson c'est un peu c'est un peu la mélodie qu'on mm-hmm. c'est un peu les accords mm-hmm. donc woy euh, quoi woy bokkul ak wax rap dafa xaw quoi voilà D'accord. Alors, à euh, mes auditeurs, je vous rappelle que nous sommes en ligne avec euh, donc X-Man, il rappeur, compositeur, c'est bien cela? Ouais, c'est ça un peu. Alors, euh, euh, moi, je, je t'ai découvert il y a, il y a pas trop longtemps. Euh, depuis voilà, quand vous êtes scène musicale sénégalaise je dirais que depuis 2011, 2011. en fait. Voilà. Bon, en tout cas, localement, quoi. C'est là que j'ai sama premier produit, sama première maquette, lañ ko doon woowe. Localement, c'est-à-dire? <laughs> Non, c'est-à-dire maa ngi, c'est-à-dire maa, c'est-à-dire maa ngi nekkoon Diourbel, quoi. d' accord voilà fa servir en fait bi ma jógee université. Uh-huh. voilà un peu ma dugg ci si la fa laa njëkk a enregistré son donc localement laa ko mën a wax parce que fa njëkk def découverte bi tam mooy X-Men et tout. Uh-huh. tu vois. Uh-huh. après au fur et à bon ngay jaar label fii Dakar jaar naa ci benn label bu ñuy wax évolu Evolution Record bu nekk Rufisque. aujourd'hui maa ngi enregistré Sound Vision Record bu nekk Mbao.

kan moo fa. Diourbel bu bu njëkk c'était Black Diamonds mais aujourd'hui Express Express en fait Express. Euh, euh, ñoom euh, fi fi jaamoon bokk ñoom ñoom ñoo ñoom ñoo tagoo incendie incendie. <laughs> ok. voilà c'est un peu ça. alors qu'est-ce qui explique cela parce que Diourbel est parti pour être une ville sainte bu fekkee il y a beaucoup de jeunes qui qui sont là-bas et qui évoluent dans le milieu de la musique qu'est-ce qui explique cela. waaw xam nga musique la musique la musique elle est universelle quoi. Mm-hmm. dire euh, ñun dañu nekk ci dëkk ba nga xam ne c'est pas strictement même su fekkee ville sainte du dëkk ba nga xam c'est strictement musulman wala strictement chrétien c'est-à-dire c'est c'est pays laïque quoi. Mm-hmm. donc euh, nit ki soo amee passion évoluer ci benn milieu. Mm-hmm. Euh, tu peux le faire mën nga ko def sans pour autant mu enfreindre yenn règles wala xam nga ñu mën la ko reprocher quoi. Donc, même Jobel Boneguer simple, il y a beaucoup de jeunes, ils sont, sont animés par cette passion de la musique. Mm -hmm. y a des talents, y a des animateurs qui sont là y a des radios locaux. Ah, ben, donc, euh, voilà, ça fait que, il y a mix, quoi, y a la mixité. Mm Voilà. Bon, religion, jamono, quoi. <laughs> Comme ni ko gars yi di D'accord. temporel <coughs> Voilà, spirituel donc, et voilà, le temporel, donc, loolu c'est forcément nit loolu la quoi ñaar yooyu la. d'accord alors quel a ton tout premier produit en 2011. waaw mon premier produit là je me rappelle je me rappelle c'était tu vois jël ma jël ma ci sa xol c'était un titre un peu <laughs> en tout cas c'était une inspiration ba nga xam ne c'était c'était réel c'était un vécu voilà sama mbëggeel la mbëggeel la woon en fait. voilà. <laughs> waaw dama ko dundoon en ce moment parce que là j'étais très jeune en ah, même aperçu amour si si si aperçu ba nga xam ne voilà. loo ñu ci mën a raconter c'était une déception c'était euh, de l'amour. bon tu vois quand tu entends le titre jël ma ci sa xol ça veut dire que c'est un peu une braque quoi une braque. Uh-huh. en fait j'aimais la fille tu vois. histoire euh, je voulais qu'elle me rende ça en fait. histoire bon je je me dis que si histoire laa ko inspiré moom mais demul noonu carrément si man quoi en fait. Mhm. voilà dans l'entourage j'ai puisé si si réalité yi. Mhm. puis tuuti sama relation tamit sama vécu mais bon voilà c'était peut-être un peu innocent et tout mais a même ça renfermait quelque chose ba nga xam ne c'était c'était c'était cool quoi c'est exotique. comment ko inspiré woon si benn son benn son Hotel Books c'est des Américains. Mhm. Euh, son bi mm-hmm. donc je l'ai traduit en en wolof. Mm-hmm. Euh, ma ne jël ma ci sa ça. d'accord. de à tu as évolué à Diourbel puis tu es venu à Dakar. Qu'est-ce qui poussé à venir dans la capitale pour mieux vivre ton art? je pense que j'évolue parallèlement, hein. Moi, parallèlement à Diourbel. Dakar mais euh, feneen ak feneen ah. parce que aujourd'hui musique c'est pas ki te fii nii dem mais musique c'est d'abord euh, nga englober nga cible benn nga am benn cible quoi en fait. Mhm. c'est-à-dire sama cible mooy lan ma cible c'est une cible nationale c'est le Sénégal. échange mhm. commande balaa peut-être ñuy wax bon une cible internationale parce que loolu aussi la ñuy rêvé en fait. Mhm. tu vois su ñu demee bi euh, jàngi instrument yi. waaw gëstu ko ba xam ci lu bëri c'est parce que dañ ko bëgg a def mu mën a génn mën a correct mën a clean quoi. soo mhm. comprendre li may wax. d'accord. voilà donc euh, évolution bi foofu la mais en même temps may nekk Diourbel parce que maa ngi Diourbel ba léegi teewul damay ñëw fii nii si ay concert dama fi ñëw si mais dem aussi si yenn région yi parce que maa ngi dem en 2015 à Saint-Louis à Pandax. Mhm. à Pandax bu Saint-Louis en en en 2015 voilà c'est ça. Mhm. j'ai joué de concert. tu mm-hmm. vois donc dañuy dañuy sillonné un peu quoi sillonné sillonné dëkk bi mm-hmm. jéem a xool fu nekk nga jëm fa marqué benn empreinte. Mm-hmm. bon aujourd'hui euh, c'est ici boo xoolee musique sénégalaise fii la quoi en label yu mag yi nekk fii la studio yu mag yi nekk. show yu mag yi fii lay amee. mais ça veut pas dire que waruñu boole ñeneen ñi parce que région boo dem rek am na am am na lu fa nekk donc c'est notre devoir. fépp fa nga xam ne jeune moo nga fa ak keneen ak keneen loo xam ne ku bëgg li ñuy def carrément ñu ñu fekk la foofu voilà donc samp samp moo ko fenn quoi ah, ok <laughs> on va revenir tout à l'heure euh, single yi nga xamante ni euh, jot a def ak euh, li jot nekk sur le marché déjà à côté de toi il y a la fille avec qui tu as fait le clip okay, okay. là on va parler un peu du contexte actuel comment est-ce que tu es en train de vivre la pandémie parce que apparemment beaucoup d'artistes se plaignent nee nañ seen activité yëpp dafa nekk au ralenti est-ce que c'est ton cas bon forcément parce que boo waxee musique da ngay wax rassemblement da ngay wax concert donc loolu boo mënatul am sa veut dire que artistes yi ils sont ils affectés forcément. mais yow tout le temps yaa studio ah? bon en fait parce que comme li ma la ko dama nekk ci produit ba nga xam ne c'est un produit d'envergure. Mm-hmm. wax naa la ko sax c'est un album donc euh, forcément. Euh, y a la création tout le temps yaa ngi création déjà maay sama guitare laa yoroon nii def samay création. Mm-hmm. xam bon boo créé dem euh, studio nga concrétiser loolu sa bon sa programme instrumental wala wala def enregistrement voix donc ça prend du temps mm-hmm. <coughs> ça prend du temps et euh, voilà c'est comme ça qu'on le fait chaque jour su mm-hmm. fekkee tu le sens tu sens ta voix wala tu sens que war nga créer benn affaire da nga dem studio forcément ñun bon gars bi ñuy dem fanaan di joobe wala autre chose ñun studio mooy suñu kii quoi mooy suñu atelier mm-hmm. kon <laughs> préparer du lourd quoi euh, pour après Covid. Euh, dégg nga. ma ne kon yaa ngi préparer du lourd. oui du lourd après Covid ah du lourd après Covid après Covid parce que du lourd mais aussi si long terme bi quoi. Mhm. parce que album bi je je peux pas dire que moment bi laa koy génne. d'accord mais au fur et à mesure en tout cas dina may single yu jàll na yoon bi. Mhm. Euh, chaque moment nga teg benn single ak Euh, voilà, euh, noonu lay demee quoi en fait. noonu lay demee mais après Covid y aura des trucs extra. Euh, si Covid bi ah peut être génne yi single gars yi dem si en ligne xool ko. Ah, ah. si si. Euh, voilà c'est un peu ça quoi. bokk nga ci artistes yi génne. Euh, Euh, signal de sensibilisation. Ouais, Mais là, là, là, euh, les gens, ils, euh, procèdent à des critiques. Nee nañu, il y a, il du mimétisme, maanaam toppandoo gi dafa bari, il y a trop de chansons. Au final, okay. le grand, public duñu xam sax à quelle chanson euh, se fier. affaire bi dafay dem ba jur pëccëxoo ci seen bopp. Est-ce que tamit oh. seen part waxuñ dëgg, est-ce que ñaar bu buñ wéyoon rek doyul. Pourquoi ah, je, je, me dis que, je même, je me dis que peut-être, c'est un problème d'organisation. Ah ah. je me dis que genre compilation lañ ko waroon def ministère moom moo waroon woote. Mm -hmm. parce que lu mel ni bu amee ministère de la culture. Mm -hmm. xam nga moom moo ñu jabooti tous les artistes. Mm -hmm. il fallait comme am na artistes yu ay compilation mais bon ay bëriwuñu en alors que boo xoolee par exemple Haïti Haïti bi mu amee tremblement de terre. tu vois les Américains dañu jëloon artistes yu bëri. ah ñu def benn compilation def benn son. et c'était un tabac hein. voilà day dox. Mm-hmm. tu vois et nit ñi dañu dañuy accès wu si benn son si benn un seul truc mais su fekkee maintenant artistes yi ku nekk da nga sentir ne dans le devoir de dire quelque chose te yow gisoo ko la woo pour xama mooy loolu bon t'es obligé singulièrement nga def dara nga teg ko. Ah. après ñi lay suivre say fan ils vont ils vont ils vont ils vont mm-hmm. wax ak ñeneen ak ñeneen parce que day daw si ta et tout. Mm-hmm. bon après euh, tu sens euh, bon nga wàcc ak sa conscience quoi. Mm-hmm. c'est un peu ça mais je me dis que mënoon si kaw. gars def ay compilation même buy doon benn ñaar. même buy nekk benn ñaar. nga xam ne comme ni nga ko waxee du bëgg jaxasoo si bopp gars yi gars yi duñ jaxasoo du malheureusement bon. ñun peut-être tollaguñ foofu quoi en fait. Mmh. parce que parce que j'en ai parlé à un manager un professionnel je je lui ai je ma yi il y a beaucoup de singles qui sortent qui parlent de la même chose du coronavirus est-ce que euh, buñ ko defoon benn ñaar ñetti artiste wala maximum ñetti single mu am mm-hmm. nit ñi comme ça ku ne xam ba mu clair dans leur tête. il m'a dit que. plural pluralité bi c'est bien mais quelquefois ça pose un problème de qualité quoi voilà problème bi aussi foofu la mhm. c'est-à-dire euh, ñëpp bon euh, ils prennent le temps de de, de parler truc mm -hmm. mais qualitativement y a, y a un problème oui muy si artistes yu mag yi muy si artistes yu ndaw yi man seetlu naa ko mhm. donc qualitativement y a un problème parce que y a un problème day déglu son bi do bon benn la marqué en fait oui c'est ça j'en commande alors que ce genre de truc dafa laaj quand même nga xam ne day voilà day ànd ak émotion mm-hmm. euh, sensibilisation baa ngi si mais émotion bi aussi parce que musique aussi mm-hmm. muy lancer message il faut que ça soit captivant il faut que ça soit émotionnellement captivant mm-hmm. voilà quoi donc bu ñu defoon compilation yooyu noonu dina mën a dajal le maximum d'artistes yi ñu euh, euh, te son yi du bëri voilà D'accord. Alors, euh, qu'est-ce qui vous pousse à, à vouloir tous faire sortir euh, un, single Macky Sall bi mu wax moo leen moo tax ngeen di cëppi cëppi wala. da du tout man dégguma sax lool. loolu la kay. non sérieux sérieux j'avais j'avais même pas entendu que am na aide wala quoi que non. man man man man man avant dara avant avant dara peut man je suis fonctionnaire de l'État. Ah Ouais, sérieux, je travaille. kon 1000 non non attends jaral demoon loolu sax dire euh, en fait. Uh-huh. Euh, xaaruñu loolu quoi. Mm-hmm. xam nga on l'a fait comme ni ma la ko waxee. parce que c'est un devoir de de ba nga xam ne on on s'est on s'est senti quand même euh, concerné voilà on s'est senti concerné. mm mm-hmm. dire que artiste bi benn affaire bu xewee bu laal askan wi. bon si t'es du côté du peuple laa wax donc forcément da nga war a jóg a wax parce que porteur de voix nga mm-hmm. da nga war a génne daaw am na ñu lay suivre mm-hmm. euh, je me dis que message de sensibilisation bi ma lancé sama son bi mm-hmm. même bu dee dix personnes vingt personnes ils vont suivre ça et dina leen yokk quoi si côté côté côté fagarogu et tout bon côté boobu laay xoole quoi en mais man je fais pas ma musique pour état lu muy joxe wala public bi lu muy joxe en même su fekkee c'est une musique ba nga xam ne dañ ci visée mm-hmm. c'est vrai mm-hmm. mais d'abord ñun on a un portefeuille quoi vraiment sant yàlla <laughs> d'accord aussi x am na benn tendance jamono bi boo xamante ni tamit euh, artistes yi jël nañ ko mooy leur live sur Instagram ok ok est que tamit c'est pas artistes yi ëppaluñ tamit bon peut-être mën na nekk ce point de vue mais xam nga moment confinement aussi dañuy xalaat y a le stress y le sel bon l'ennui. mais mais si tout le monde se met à faire des lives est-ce que dañu dem ba bourré les gens les suivent est-ce que. c'est que le problème moo tax ma ne bon aussi aussi bon ñu bañ leen ko xañ parce que ku nekk am nga sa public quand même bu suivre. c'est-à-dire man su may def sama live Instagram. d'accord voilà j'ai certainement j'ai certainement. dafa am lu ñu ciy ouais euh, bon euh, certainement. dafa am luñ ciy gagné. bon certainement parce que ay partenariat doon normalement ak ak ak site ak ak ak réseaux sociaux yi. Mm-hmm. xam nga donc euh, les vues là et les trucs là interaction et tout ça ça ça donne. Mm-hmm. xam nga même bu bu nekkul côté pécunier nekk aussi côté côté côté notoriété. Mhm. tu vois côté nga voyager sa sa musique voyage à travers réseau social bi parce que aujourd'hui la musique c'est avenir bi c'est c'est la musique en ligne. xam nga ah loolu moom il faut il faut ñu taal si kii artiste peut-être naan nañ côté boobu noonu aujourd'hui moo mhm. ngi ci jéem a jublu. xam mhm. ah euh, donc voilà être présent le maximum possible si réseaux sociaux yëpp. sur moins. xam nga bon voilà on peut. personnellement peut-être lool peut-être lool la quoi. waaw waaw. dégguma nga ne. maa ni kon yow yow tamit yow yaa ngi ci mbir bon non man personnellement defuma live Instagram wala Facebook ci confinement bi nii. pourquoi pas. non man je me concentre le plus ci sama projet c'est-à-dire euh, euh, samay textes samay arrangements. Mhm. parce que j'arrange mes textes avec ma guitare dama koy arranger lépp ba mu mool balaa ma dugg studio. Mm-hmm. donc loolu ça prend tellement temps que bon waxuma talu ma ko parce que le public aussi bëgg nañ di lay gis mm-hmm. mais xam damay nekk si loolu noonu pour le moment gagner du temps en tout cas balaa affaire bi di kii quoi. Mm-hmm. voilà noonu la fa demee. D'accord. Alors, par parle-nous un peu de ton dernier single euh, que tu as accompli avec Ndella. Avec Ndella. <laughs> ni ma ni ma nous en. ni ni bon c'est un peu une histoire réelle ah. boo déggee titre ni ma mel si man la jógat quoi c'est un vécu. Mhm. c'est c'est comme une autobiographie avec une fille ba nga xam ne bon bof dama ko dama ko sonal. hmm? je un peu, j'ai pas un peu respecté ses sentiments et tout. Uh ah, -huh. Ah. c'est une sorte de confession quand même. Uh mm-hmm. dire ay rëccu et tout, ay remords. Mm-hmm. xam nga ak ay ak ay boole si biir son bi di fàttali yi nga ko def xam nga euh, mais aussi lui expliquer que loolu noonu yëpp du la nga xam ne da ko for wala quoi que mais naturellement te te comme ça c'est quelque chose ba nga xam ne bon euh, c'est c'est une nature. Mm-hmm. xam nga loolu aussi moom dala accepté dala accepté noonu quoi loolu moo waxal titre bi surtout ni ma mel. Mm-hmm. c'est-à-dire dans le je je dis que mosoo ma mosoo ni ma mel. Mm-hmm. mosoo ma xoolee bët yu dul bëtu cofeel tu ak li ma la métti ak li ma la teg fitna teewul ngay bés di bés sa xol tu donc ça donne un peu une confession xam mais aussi xam nga nga ne. kii bon moo gën ci ok voilà quelque soit <laughs> sa sa kii tuuti quoi. ah c'était très original et on a adoré. est-ce que on a euh, jot euh, la fille avec qui tu as fait le clip. Ndela ouais elle est là Ndela. Mm-hmm. allo allo. Ndela ça ñu lay jox le privilège de saluer nos auditeurs. Atia. Atia ñu ngi leen di nuyu ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp ci waa Rewmi Info. Mhm. Ah, di leen ziar bu baax a baax a baax uh-huh. leen wax ne leen suñu xol sedd na uh-huh. euh, yàkkamti woon nañu lii tamit uh-huh. waaw dëgg neexul <laughs> alors qu'est-ce que ça t'a de tourner dans le clip de de X-Men waaw loolu dafa nekk loo xamante ne kontaan naa bu baax a baax ci boobu question parce que X-Men euh, doon na koo xamante ne mag la ci ñun doon na koo xamante ne lépp la euh, en plus tamit ma nekk actrice Euh, war a a jàpp si liggéey bi. Mhm. mu doon tamit buñ ci jàppee mu jëm kanam buñ ci jàppee mu jëm kanam te duñ cee a mën a mhm. tamit nag euh, di ko ak xol bu sedd. Mhm. parce que day wane ay euh, histoire yoo xamante ne man mi nga xamante ne man maa koy dund dafa mel ni réel la ci man. ah parce que yow da nga koy dund quoi. waaw voilà dafa mel ni réel la ci man parce que ni ñu doon joué kii bi. Euh, comme genre scénario comme genre film. Mhm. ci biir. parce que des fois mu def ma yow xamante ne yaa yaa ma gën a xam nu may bëgg a fayu sax. <laughs> voilà muy noonu. alors Ndella moom ma question mooy léegi lu tax xale jigéen ñi. elles mhm. veulent toutes apparaître dans les clips euh, télé ou bien être des présentatrices pourquoi les les maintenant maintenant les filles elles aspirent toutes à être des des vidéo girls. Euh, benn instant. waaw non c'est euh, benn benn instant mënoo ñëpp mënaguñu génnandoo. Mhm. ñëpp mënuñu génnandoo comme làmb ji lay doon. Mhm. ñëpp mënuñu nekk ay mbër. am na ñoo xamante ne mën nañ ko doon la ci seen yaram buñ ko defoon tey day day rafet. mais qu'est-ce qui fait ça lan euh, tendance boobu lan moo ko indi Sénégal. am na ñoo xam dañoo bëgg siiw am na ñoo xam dañoo bëgg siiw gis nañ la gis nañ la loolu rek dafa nekk bonheur ci ñoom. Mhm. <laughs> la ci. non non non man dama dama def aar. Mm-hmm. dama yàgg def aar di yàgg di yëg ci podium yi. def formation. def formation. rab mm-hmm. euh, rab naa ko def naa sax <laughs> mm-hmm. xam ah, dafa mës nekk ci sama yaram. dafa mos a nekk si sama yaram. Euh, doon naa toog di rêver. retombé euh, yan yan yan écho ci am tu as été critiqué on a apprécié wala. ah yow Sénégal critique day am. am ñu la man damay gën a nangu critique yi xam nga lu mhm. parce que critique day defar. Mhm. man damay jàpp ne critique day defar parce que tey jii su ma defoon dara nga ne ma waa mais li nga def baaxul bu ëllëgee dootuma ko defati. Mhm. c'est ça man ku may critiquer lay gën a mën a bàyyi xel sax que ki may apprécier franchement. Mhm. d'accord alors est-ce qu'on peut s'attendre à ce que yeneen clip yi ñëw yëpp nga nekk ci mu nar a mel ni Edmo ak Racky euh, ah ah yéen ñaar ngeen dem ba est-ce qu'on peut s'attendre à ça. ah xam nga lu may bañ nag xam nga lu may bañ. <laughs> copine bi di ma di ma di ma di ci mbedd mi lan lay bañ. <laughs> ah dëgg la moom moo si nag moo nag si. mais mais nag mais nag bëgg nañ ko uh-huh. ko gunge parce que doon na koo xamante ne ku neex àndal la. Mm-hmm. franchement parle du fàtte nitu démbam. waaw. mu toll mu lay gëstu fu mu toll mu ngi lay toppatoo. d'accord du fàtte nitu démbam mais yow ñaata nga cëru. ñaata laa cëru ko. Ah, enveloppe bi mbaa dugub. Ah. <laughs> mais xaaral naa ko wax si suuf. en tout cas merci beaucoup. Eh, merci beaucoup merci beaucoup yow tamit kenn gënul la yow tamit doon nga ko nañ ko bi foofu la <laughs> da ngeen di ñëw en direct. confinement bi moo waral lii mais. waaw bientôt vous allez venir dans nos studios comme ça on va faire une émission en direct. alors euh, mais euh, tu as fait de la guitare. Est-ce a été évident de faire euh, de la guitare en même temps euh, être euh, expert aussi dans autre chose Je dirais que ça n'a pas, pas, été facile. Mm-hmm. Mais bon, vous savez, la passion, la passion, belle affaire là. Mm -hmm. Moi, dit que euh, day am day am du day caaxaan si day am. Mm-hmm. <laughs> voilà olof la quoi day am day am quoi. Mm-hmm. c'est-à-dire c'est une ambition ba nga xam ne da lay jaxal lu bëri quoi da lay jaxal beaucoup de sacrifice mm-hmm. la guitare ça a été un sacrifice ba nga xam ne dama ko consentir mm-hmm. mais ci tel ci tel nag quoi en fait ci tel mm-hmm. ba ma découvrir ne dama ba ma découvrir ne am naa ay potentiel vocal ok donc je me suis dit que il faut que ma jàng instrument bu may accompagne waaw ah, ba nga xam ne su sur scène di jouer concert Euh, bëgguma dépendre aussi ay logiciel et tout quoi je soit naturel. ok. te bu ñu en direct incha allah tu vas voir. <laughs> d'accord léegi bu ba tey ci sa carrière. Euh, mhm. dem là où tout a commencé mooy Diourbel Diourbel Black Diamond fa lañ jóge waa express ah fa dans le rap sénégalais ils ont fait leur ah euh, jusqu'à présent pourquoi tu n'arrives pas à être euh, donc au devant de la scène pourquoi notoriété bi bi yooyu am yow ba tey atteindre go level boobu qu'est-ce qui se passe <laughs> voilà bon en fait je me dirais que man ba ma ba ma demee Diourbel à mes débuts man ñooñu fekk naa sax ñu nekk ci affaire bi. Mm-hmm. fekk naa ñu nekk ci affaire bi nekk ci bagage bi may ma leen seeraan concert boobu je ne suis pas encore lancé carrément. Mm-hmm. ama donc ça veut dire que c'est normal aujourd'hui peut-être que ñu am benn marge ba nga xam ne amaguma ko. Mm-hmm. naturellement quoi c'est-à-dire si côté njëkk a commencé wala et tout bon bien vrai que ça c'est pas am mm-hmm. na ah, ñoo xam ne ils commencent bon ñeneen fekk leen teg leen tànk tu vois ce que je veux dire. Mm-hmm. voilà mais aussi de je bosse quoi en fait je bosse je suis un agent de l'État c'est pas facile. Mm-hmm. parfois le temps ne te permet pas aujourd'hui parfois daaw naa am ay programme da nga xam ne c'est dans la semaine du ma ko mën def parce que man le week-end rek lay am temps. tu vois loolu ça joue. da ciy joué voilà de voilà day joué. day day joué su ma su ma nekkee weekend ba weekend parfois wala par quinzaine laay mën a ñëw dugg studio. loolu aussi ça joue parce son bu waxoon génn aujourd'hui bu waxoon génn tey ki nga xam ne moom dafa nekk à plein temps ci affaire bi mën na génne un son tey alors que yow t'as besoin d'une semaine max wala une d'une quinzaine pour nga mën ko pare. échange mm-hmm. ko man loolu boo ko cumulé c'est c'est bon c'est c'est une somme ba nga xam ne de jouer aussi quoi. Mm-hmm. bon deuxièmement dama nekkoon naa ci ay groupe aussi ci ay Mm-hmm. Euh, ba may ba ma demee Diourbel dugg nekk naa si ay groupe bon mais da ngeen di nekk quelques mois après xam rek commencement début bon mu am benn break bon après nga nekkaat si defaru et tout bon parfois loolu aussi ak temps bi nga xam dañ koy perdre ça joue quoi. léegi lan moo ci groupe bi nga nekkoon. da nga màggoon bëgg voler de tes propres ailes wala. Ouais, c'est un peu ça, cest dire man ba may ba may ba may am ambition musicale aussi, c'était c'était pas je me voyais pas en, en tout cas nekk ci groupe d'une manière définitive. Mm -hmm. Non non. Man je me voyais chanter en solo. Mhm. avec un orchestre, un orchestre peut-être ak ak des choristes. Mm -hmm. Ah mais avec mon instrument voilà. Man loolu moo yàgg nekk sama sama kii sama chemin donc même dans le groupe man loolu dama ko doon ambitionné parce que si groupe laa nekkoon ba may njëkk a jël sama guitare di ko jàng en fait d'une mm-hmm. manière solo xam ah nga donc j'ai jamais perdu cette ambition solo là d'accord xam ah nga donc euh, voilà un peu ok loolu loolu moo ko waral à t'entendre parler on a comme l'impression que tu as plutôt euh, euh, le tempo et aussi donc euh, sais pas comment dire l'attitude d'un slowman d'un quelqu'un de doux qui courrière <laughs> euh, du, du, slow quoi à la place du rap ouais bon je dirais que j'opte plus pour ma chanson mm -hmm. ce que par, parfois je, je demande rappeler au touti rap touti ça me sont mais je suis plus pour la chanson je suis plus pour la douceur mm-hmm. pour ce qui fait plaisir à entendre <laughs> ce qui est agréable tu vois ouais, ouais. genre que le bonbon Ouais, c'est ça. Parfois, on me dit même que c'est les, c'est qui te coûtent en fait le plus. Okay. Pour le faire sans snap, ils me gâtent tout, c'est les filles. C'est des Bon, ça veut dire que nous, peut-être, nous regardons la affaire. Certainement. Mais ça veut pas dire que les garçons aussi chantent pas pour parce que man, j'aime j'aime me lancer dans dans la sensibilisation, dans dans la conscientisation. D'accord. Ah, surtout côté panafricaniste tu vois ce que je veux dire donc chante pour tout le monde quoi muy góor muy muy jigéen muy mag muy ndaw d'accord mais message vraiment dinaa si def bon synthété buy tax ñëpp mën ko déglu quoi très bien voilà quand à quand l'album nag inchallah l'album en tout cas c'est en chemin di mhm. ah, la nekk ni ni muy wax ak yow nii la sama guitare la uuf ni yéen nekkoon say affaire mhm. <laughs> donc euh, euh, voilà mooy ñëw. da nga corona dem rek. ba corona foofu mu dem te xam comme xamuñu kañ la moom ñooy ñaan dem parce que liggéey bi taxaw na tu vois musique bi taxaw na. <laughs> lépp taxaw kay c'est un peu ça si perte yi sant voilà. mais bien sûr. Eh, euh, dafa yóbbu quoi. incha allah mais nag yàlla baax na. dem ba yow sax nga mën a ñëw si suñu studio comme ça ñu direct avec la guitare. waaye non t'inquiète en tout cas bu demee rek loolu ñu taxaw si. d'accord ah, quel est le dernier mot. moi le dernier mot sera en tout cas des mots de remerciement à votre égard. vraiment kon kontaan na que c'est pa évident. du ma ne c'est la première fois mais euh, c'est rare quand même. xam nga vraiment média yi di jël di woote en bon c'est vrai am ko am na lu xam nga di woo artistes yi bi leen joindre mm-hmm. euh, tu vois ñu waxtaan pendant des heures mm-hmm. c'est pas évident mais vraiment on a besoin de ça mm-hmm. parce que forcément parfois tout le temps déplacement yi du du ko permettre donc euh, effort yi ngeen def vraiment euh, on est reconnaissant vraiment kontaan si Rewmi FM tey kontaan si vraiment auditeurs yi di leen ne kar émission bi <laughs> voilà d'accord X, ah ouais. X, X Man était notre invité dans cette émission donc Rewmi People de ce samedi. Diène Tag Mbengue mooy moom bëgg waa waa deux visions deux visions. <laughs> deux visions TV deux visions production parce que ñoom ñooy tourné samay vidéo. Mm-hmm. voilà di di kontaan si li ñuy def. Mm-hmm. kontaan si partenariat bi et tout. Mm-hmm. di leen wax ne am nañ chaîne TV moo ngi si réseau câble voilà merci beaucoup yow tamit ñu ngi lay ñu ngi lay jaajëfal bu baax man merci d'avoir répondu à mon invitation. Okay. Ah, donc c'était un grand plaisir de t'avoir au bout du fil. amis auditeurs kon. le plaisir dañuy dem ba beneen yoon ñu indil leen beneen artiste que ça soit dans le wala sur le fil ñu waxtaan ak moom. xaw ma nag weeru koor bi nu muy demee ah ji ji maa ngi la koy laaj de weeru koor bi nu muy demee. <laughs> X bàyyi ma tëj sama émission. D'accord, ciao. <laughs> Ciao, allez. Merci d'avoir été au rendez-vous. On se donne inchallah rendez-vous samedi prochain ak beneen saax ñu ngi leen di ñaanal tam weeru koor bi ñu duggati ci jàmm. eggali ko ci jàmm lépp luñ ci woor góorgóorlu ci yàlla ko suñu borom ful ah ñu dem nag ba fàtte di nga xamante ni moo fi jota am di mbas mi mu dem ak jàmm ak salaam ba ku nekk delluwaat ci ay activité am jiri delloo naa la léngay aca très bon week